ñun dañuy politique et politique c'est l'existence et la présence aujourd'hui sur ce plateau Ousmane Sonko est en réalité le seul qui existe et qui est présent non maa da nag lu nit mën a wax donc ku yaakaar ne ñun dañuy foo foowuñu ñu xam nañ li ñuy def bien que ne on nu met dans des positions ou nos options sont limitées mais on ne va jamais Et pour répondre à Hassan, on n'abandonnera jamais la bataille. Et je vais le dire à ce régime, qu'il le comprenne bien. Cette bataille, elle est politique. Elle sera toujours politique. Et dans quatre mois, on va en découdre sur le plan politique. Avec l'Union def, nous allons les défaire politiquement. Ça, il faut qu'il le sache. Maintenant, peu importe li ñu mën a def ci diggante bi peu importe lu ñu mën a teg ci diggante bi seen bataille politique sur le Sénégal sur notre offre politique et fi ñu bëgg a jëmee sénégalais yi ba tax tey sénégalais yëpp adhéré ci Ousmane Sonko symboliser ko qu'il le veuille ou pas cette bataille politique aura lieu kooku moom. bu dee loolu bataille politique aura lieu et une victoire politique aura lieu. sànq dafa am loo nga xam ne Thierno da ko wax et j'apprécie vraiment. c'est différence dans l'analyse parce que c'est dans, dans la différence mm-hmm. qu'on qu'on qu'on qu'on peut préciser certaines choses il faut quand même reconnaître quand même à Ousmane ak ñi mu àndal que sur le plan politique mm-hmm. dañu assumer une opposition par rapport à li fi nekk di fi dox pas par rapport à ce régime seulement mais depuis les indépendances il faut quand même nous reconnaître cela c'est vrai et je le comprends sénégalais bu ne dafa traumatisé par comportement politicien nous sommes nous vivons tous ce syndrome traumatisé par des hommes politiques yi nga xamante ne nii mën nañu retourner euh, leur vest à tout moment on l'a vécu revécu revécu donc quelque part je le comprends mais comme dañ ne dañu bëgg une analyse froide refusons que ce traumatisme nous pousse à ne pas voir les choses telles qu'elles sont malgré nos peurs malgré nos préoccupations malgré li fi passé nañu jéem a analyser la réalité telle qu'elle est aujourd'hui nañu reconnaître à notre génération te yemelewu ma ko Pastef je peux citer d'autres intellectuels aujourd'hui nga xam ne ñun ñoo bokk li ñuy wax sur la question du souverainisme que foog ñu refonder réew mi gën a jox réew mi gëdd gën a dëgëral réew mi pour que enfin qu'on prenne des décisions yoo xam ne dafa basé wu ci ñu bëgg ak li ñu soxla et quand j'entends le titre de ton ouvrage quelque part tu fais partie de cette génération maintenant benn lam benn lam du kandang il faut qu'à un moment donné que ñun ñëpp ñi nga xam ne xëy na bokkuñu même parti xëy na defuñu sax politique qu'on soit d'accord sur l'analyse et c'est foofu laay bëgg au-delà des conjectures que ñu retrouver sur l'essentiel je l'ai dit et je vais le redire dans quatre mois les Sénégalais doivent répondre à une question à une question bu nga xam ne incha allah les acteurs politiques leur ont posé cette question-là am na groupe boo xam ne ñoom dañu wax clairement que dañu nekk dans la continuité dans le cadrage macro FMI Banque mondiale dans l'endettement politique d'infrastructure ba nekk dans une logique où par rapport aux relations que diplomatiques que je peux avoir je peux donner des ressources dafa am ñoo xam ne ligne boobu lañ nekk dañ ko assumer mu leer nañ am na nag ñu nga xam ne dañu nekk ci benn ligne bu nga xam ne dañ ne ñun suñu ñëwee y aura plus de chasse gardée hmm. bu ñu ñëwee on veut des réformes en profondeur on veut un homme politique qui est assujetti à des pouvoirs souverains loolu lañ wax et je pense que wax nañ ko clairement nit ñi dégg ko maintenant Thierno il faut nu comme xaw ma nañ ko il faut nous ni ñu ko mën a waxee il faut nous il faut nous prendre au mot hmm. xam nga ñoo ko wax prendre au mot et nañu débattre ci loolu nga nangul ñu ne ñun on est différent de. xam non. adduna wóorul moo tax xam adduna wóorul c'est vrai. waaw kon ñaaw njort dafa baax. ñaaw njort baax mais jëlee au mot donc rek. je te comprends moo tax sànq ma ne. moo tax ma ne sànq ma ne je te comprends. parce que sénégalais yiy dund traumatisme bi ñoom ñëpp a yem man miy def politique. choisir politique. passionné par la politique depuis l'enfance j'ai toujours aimé la politique. Mmh. j'aime ce que je fais et je le fais avec dignité. Mmh. man su ma déggee ñu naan ñëpp a yem e quand on dit ñëpp a yem mooy damay sàcc damay fen mais ça me fait mal parce que man du ma sàcc du ma fen mais malheureusement loolu mooy réalité bi donc je te comprends ci sa sa préoccupation mais waxu politicien la mooy dangay ngay fen et en fois mes enfants me disent mais euh, papa yow da ngay politique parce que i et bu ñu ma waxee politique rek damay def attention dama naan leen qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut dire moi mes propres enfants je me dis qu'est-ce qu'ils veulent dire est-ce que ñoom ils ont la même compréhension de la politique ou ils ils ont comprendre donc Thierno pour revenir je te comprends mais prends-nous au mot et reconnais-nous que ne ñun au moins am na benn position bu assumé bu ñu am ne ñun réew mi fii mu jëm bëgguñu continuité ci lii on veut des réformes profondes maintenant on peut discuter sur les Ousmane Sonko n'a fait que cristalliser cette volonté de changement que nous voulons dans sa personne ci détermination bi mu wane ne moom bu ñëwee waat na juré na ne li askan bi bëgg la ñuy doxal et c'est pas la souveraineté. mais mais fi ñu toll souverain mooy réew mu nga xam ne li askan bi bëgg la ñuy doxal. donc aujourd'hui il est en train de subir ce choix c'est notre opposition au système. qui nous vaut tous les coups du système. mais at the end of la bataille sera politique. ndax du ngeen ci bàyyi ay mais justement. mais bu ne la bataille sera politique. oui l' impression qu' on a instant bi fi ñu toll mooy yéen a ngi utiliser bunt yi ngeen am yëpp pour faire en sorte que Ousmane bokk ci élection yi jëm malgré tout bëgg ngeen également la débat ñu élever ko ci waxtaane programme idée ga ci aju mais impression bi ñu am mooy bi ma njëkk wax dafa mel ni moo gën a audible parce que ku ci nekk ci patriote yi bëgg nañoo xam. fan la Ousmane di mujje est-ce que bëgg a xam fan la Ousmane di mujje bu dee mooy fees sa dënn yi te loolu la ñu soxla ndax bëgg ko situer ci waxtaane mbiru réew mi ci aju ndax du nëbb bi ma mujjee wax finalement nu ngeen def ba boole ñaari waaw kii su paree waaw Sénat ndax Sénat waaw waaw justement mooy bunt yi ma doon junj sànq nous avons ñun dañu def le choix Pastef boo boo déggee waa Pastef di wax sax le projet la donc ñun nekkuñu ci personnaliser débat xool nag mooy bëgg loolu kenn mënu si dara xam na ne yàllaa ko dogal mais tey li ñu lancé ñun c'est le projet et musuñu tomber dans les revers wu nekk dans la perso personnalisation du débat ñun dañu mës a les vraies questions l'indépendance de la justice la réforme foncière le rôle de l'Assemblée nationale un président de la République bi nga xam ne ni il a beaucoup trop de, de la question de nos ressources est-ce qu'il faut il nous faut une industrialisation notre politique de, de la ruralité quand on parlait de vacances citoyennes ak yooyu mais mais c'était ça je pense que ñun li ñu génne ci ay téere Pastef li mu génne ci téere rek amul parti politique yëpp boo leen génne wuñ ko donc ñun aujourd'hui c'est bizarre qu'on veuille nous faire croire que ne ñun débat bi c'est personnel c'est c'est d'autres non on nous a amené sur un terrain bu nga xam ne ni on n'a jamais voulu y aller ce n'est pas notre terrain le le je sais pas un grand savant chinois disait il faut combattre ton ennemi là où il n'est pas moi je dirais que notre ennemi le, le régime Macky Sall et, et j'utilise le mot ennemi juste pour, pour, pour parce que c'est la phrase le terrain où ils ne sont pas c'est le terrain xam-xam nekkuñ ci mbiri xam-xam nekkuñ ci liggéey amuñu yërmande ci askan wi et ñun terrain boobu mooy suñu terrain de prédilection alors s'il pense qu'en créant ce contexte qu'on va abandonner ce, ce terrain-là, ils se trompent. Mm. Il, y aura, il, y qui feront la bataille des avocats, des juristes. Mais il y en aura qui vont faire le choix d'être de, de, sur d'autres champs de bataille. Et de leur dire que le débat que vous occulté, vous voulez contre Ousmane. Non, non, non, non. non. Mm. C'est le destin d'une nation qui, après 60 ans d'indépendance, vient de comprendre que, attention, des problématiques sociales graves. Mm. Quel est mon système c'est quoi les valeurs qu'on donne à mes c'est quoi sama système politique lan la lan lan la ñuy jàngal sama askan est-ce que xam-xam la wala lu kenn xamul la société bi est-ce que mën na avancer quel est le système politique que j'ai est-ce que j'ai une justice véritablement qui sert le peuple est-ce que j'ai une assemblée nationale où tous les députés viennent de moi est-ce que j'ai un exécutif bu nga xamante il est obligé de me yooyu qu'ils le en tout cas man bu ñu ma dugalul numbu siin moom loolu laa def sama champ de bataille kenn ku nekk buñ la dugalul numbu siin moo fa demul ah. loolu laa def sama champ de bataille et c'est tout le sens de l'ouvrage que je sors oui lépp <laughs> bi may xalaat ne il faut que ma génne livre bi justement dama analyser trois quatre mois si ginnaaw j'ai senti que OPA sur Pastef e sur Ousmane mi ngi en cours ils vont attaquer les hommes et la structure mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever c'est nos idées et dañ koy def téere teg ko ci table ji demee ko campagne moo tax ma ne la bataille est politique qu'il le veuille ou non il y aura une bataille politique les quarante mille milliards qu'ils ont dépensés en douze ans ils vont nous dire fan lañ yóbbu askan wi tey wax nañ leen ñu wax ñu ko wax nañ ko mënuñ ko wax wax nañ ko mënuñ ko wax wala boog dañu wax quarante mille milliards quarante mille milliards waxuñu dañ ne feeñ na ñu ngi koy dund